asalaamaaleykum mbokk yi topp 24actu.com ñoo ngi fii ci gaz Dakar bi njëkkoon a nekk ngir seet woon xar yi ndax ku ne tabaski ne xar yi te buñ tamit wax ci diggante jënd ak jaay ñu daal di seet si woon ñi nga xam ne ñooy jaay xar yi daal di fas yéene ànd ak ñoom nag nga xam se moom la ñuy jaay ci xar yi ba xam xar yi ndax bareegu na ak prix ndax seerut euh, ak yan xar mooy jar yan façon xar mooy euh, moo gën a jar ci tabaski bi loolu lépp nag bu ngeen ko bëggee xam da ngeen ñu daal di daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy jaay xar yi laaj leen ba xam fan la prix yi ak ndax cliente yi ñi ngi ñëw bu baax wala déet. seer dafa seer dafa seer dafa seer. dañu xar moom ren boo yore trente do ma bi ngay am de du du ndaw lay doon. mu tuuti lay doon. waaw kii moom euh, laadum lañ koy wax mais dafa xaw a sàcc talaa daal. waaw ah, waaw ah, ah, dafa sàcc talaa biir. moom prix bi fu mu toll. Hmm, lii de moom prix bi xam naa warul seer daal ndax euh, bu ñu amee 500 jaay bu ñu amee 450 euh, jaay ko fii daal xam naa ko fi ñëw di nga am catégorie bi nga bëgg moom incha allah. xar yi xar nga xam ne am na soixante-dix am na soixante-quinze am na cent mille am na quatre-vingt-dix am na soixante mille waaw. maanaam bariwaay bi nag déggu dégg rek parce que xar mi maanaam man daaw xar mi bu ma bu ma yoree cent mille maa fi bàyyi sama bopp ren fay naa cent dix mille borom bañ kon ngay nga xam ne <laughs> bariwaay gi taxul mu yomb. laa ñëwoon daaw waaye fii moom li daaw la ëpp. waaw ren moom bëreegul man naa am fii ak suba nag ginnaaw suba ñu ñëw am ñoom xam dañuy ragal xont bi. waaw ñun nag dinañ xonte tanoor laadum waaw tanoor laadum dañ koy xonte ak super laadum di boole mboq ak ripaas di boole mm, euh, mm, ngooñ. yooyu yëpp nañ koy nañ koy ak ripaas bu baax waaw. xont bi yombul seer na lool ngooñ mi seer na ripaas bi seer na moom lañ koy xonte. xont bi moom moo seer na xont xontu seer na parce que xar moom ku bañ coono ku ne doo ko yar. parce que lépp coono la. waaw laadum yi ñaa ngi koy jënd bu baax parce que xam nga li problème bi mooy euh, élevage moom euh, nit ñi dañ ci amu dañ ci amu bëgg trop waaw parce que xam nga bu fekkee da ngay yar xar moo xam si ne nii day am deux mois euh, maanaam toll ni xar yi nga xam ne da nga leen yar ay année maanaam boo ko gisee da nga ciy am bëgg. loolu moo waral nit ñi di ko jënd. waaw am na ci yoo si moom ñun ñoo leen yaral suñu bopp ah, ah, ah, waaw yi ci ëpp moom ñoo leen yaral suñu bopp yenn yi moom dañ ko jëndaat ci client yi. Euh, boo gisee bu ci xaw a seer lu mu gàtt gat rek dañ ko jëndaat ci nit war cee wutaat dara loolu mooy waral muy xaw a seer waaye bu fekkee ñu ñoo ko yaral suñu bopp moom wax dëgg yàlla ñun plaisir bi mooñ ci ëppal solo ka maanaam di ko jaay prix bu seer ak convoqué nit ñi pour ñu xam ne maanaam euh, yar baax na daal waaw loolu lañ ci jublu waaye maanaam nekkul ne dañuy koñe nit ñi wala dañ leen a bëggut jaay wala dara parce que boo gisee ñu exposé nii dañu bëgg a convoqué ñi pour ñu xam ne maanaam élevage baax na daal waaw loolu moo waral ñu de waaye fii sax boo xool ni am na yoo xam ne jaayul waaw. xam nga xar xar moom bu bu bëree kenn ku ne man cee am waaye bu tuutee doo am xam nga lu bari yomb. ndir jafe-jafe kenn kenn ku ne sa wërsëg ngay jaay ne boo seetee biir marché Ocass bee ka ne ca fooba day jaay. kenn ku ne sa wërsëg nga am. ñu gis ne na xar nag daa mel ne ni mu baree woon bareewu ko ci ren ji waaye xëy na feeg suba wala gannaaw suba xar yi dina gën a jàpp ni ba borom kër yi nga xam ne xar yi jot jotaguñ ci xar yi dinañu jot ci li nga xam ne moo di xar yi kon nag mbokk yi lii lañ leen andiloon rek di leen wax ne bu beneen yoon jërë ngeen jëf.